internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir saa su nekk xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. Sénégal. internaute dañuy bàyyi xel ci ñu leen di nuyu fas ko xibaar tey jeudi di premier décembre ñu tàmbali ko xibaaru biir réew mi. démb nag accident bu métti moo am ca ba nag lu si ñeenti nit ñàkk ci seen euh, bakkan amit euh, fukk ak yoo xam ne am nañ ca ay gaañu gaañu ci ki nga xam ne moom mooy euh, lieutenant Adama Diop di commandant bu 43e compagnie bu brigade nationale des sapeurs pompiers mu doon addu ci suñu naataango yu APS li nga xam ne nag ñoom ñoo amee gaañu gaañu kon si boobu Ba bu Sédhiou nga xam ne ñoom ñàkk seen bakkan toll ca ñeent ñu ngi ca morgue bu hôpital. procureur de la république Amady Diouf démb nag àdduwaat na jëmale ci mbirum ñaari soldat yooyu réer muy adjudant chef Didier Badji ak nag sergent Fulbert euh, Sambou euh, moom nag xamle ne kooku la di Fulbert Sambou sax nga xam ne kon euh, moom niyoom mujjee woon ko gis nee na nag certificat de amal daal dafa wane ne kon examen externe kon lañ def ci lii di. kooram ñu wane nag ne moom gisuñu ci daal benn trace de violence maanaam li wane ne ka métital wala li ne mel wante itam euh, lii di néew bi daal dafa tàmbali woon yàqu kon ba nga xam ne sax euh, xamuñu daal euh, ci lu leer lan moo mu faatu wante it autopsie ba nga xam ne enquête yo bëggoon nañ ñu amal ko ca mënuñu ko ca amal ndax daal kon anam yi nga xam ne noonu la néew ba mel moom procureur xam ne ne ba léegi li nga xam ne moom mooy euh, seet ba ñu ngi koy ngir gis ki nga xam ne kon moom mooy euh, Didier Badji xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy Afrique du Sud foofu nag euh, lii di congrès national africain muy parti ba nga xam ne sax jiitu réew moom moo ko jiite ñoom nag dañuy amal daal ab daje. Euh, waxtaan ca ngir xool kon nan la ñuy mujjee ak ki nga xam ne kon moom mooy seen njiit la Cyril Ramaphosa nekk ci njiitu réew ma gannaaw bi nga xam ne nag fi mu nekk nii dafa am rapport boo xam ne daal. Euh, ab rapport boo xam ne kon dañ ci mbir mo xam ne kon dafa amoon euh, ci deux mille vingt ci benn këru Cyril Ramaphosa gannaaw bi nga xam ne nag cambriolage euh, maanaam ak càcc moo fa amoon nag dañ fa demee woon koppar yu takku ci nga xam ne moom mooy xaalis ñu fekk ci ab meuble ñu ne nag koppar kii di président Cyril Ramaphosa mosu ko déclaré déclaré ko police man itam déclaré wu ko li nga xam ne moom mooy. fisc réew ma loolu nag tax bu ñu ne boo mayoon dinañ xool ndax dañ koy wàcceem ci bopp boobule parti ba tey tam kon nekk gi mu nekk njiitu réew. xibaaru bitim réew te benn ponk lay doon bésub tey bi ñuy màggal li nga xam ne moom mooy bés bi ñu jagleel xeex bi ñuy xeex wàllum jàngoroy sida ci àdduna yëpp ki nga xam ne nag moom mooy directrice exécutive bu ONU sida di Winnie Byanyima moom nag fàttali na ne jàngoro eh, yi sida eh, jot na faat lu toll ci quarante millions wala sax lu ko ëpp ci àdduna bi ci ay doomu aadama neen loolu nag war na tax ba daal ñu gën a xar suñuy tàggu tuddee ci li xam ne moom mooy xeex bi ñuy xeex boobule jàngoro moom nag xamle nañ sax ci ab rapport boo xam ne kon ONUSIDA amal na ko semaine bii rek ne eh, fi mu nekk nii nag dañoo nemmee ko ay tànki ginnaaw ak yéex boo xam ne am na ci xeex boobu nga xam ne. ñu koy euh, xeex li nga xam ne kon moom mooy jàngoro sida bi nga xam ne sax dañoo bëgg dootul am ci àdduna fii ak deux mille trente. xibaar sport lañ koy jeexale réewum Sénégal xam ngeen nag qualifié na jëm de finale bu coupe du monde gannaaw bi mu dóoree Équateur ñu nag euh, lu ko jiitu sax euh, gaynde kon jotoon nañu. am daal ci ay koppar lu toll ci six virgule cinq milliards francs CFA te FIFA jagleel leen ko loolu nag muy ay prime de participation ak prime phase de groupe yi nee nañ nag euh, na am yeneen koppar yoo xam ne nag fi mu nekk nii dina ci dollee ko gannaaw bi nga xam ne kon euh, qualifié nañ suñu naataango yu sport ñooñu ko xamal ñu ne nag dina amaat yeneen deux virgule cinq milliards yoo xam ne dina ñëw dollee ko kon ci koppar yooyu nga xam ne amoon nañ ko euh, ba noppi ñu ne loolu sax dina tax ba. Euh, ñii di gaynde daal kon dinañ ci ay toll ci neuf milliards de francs CFA daal yoo xam ne fi mu nekk nii kon féetee na boor dinañ ko am si boobu neuf milliards kon de francs CFA xam ne kon euh, am nañ ko noppi si bile si bile mondial wante nag ñu fàttali ne Sénégal euh, li nga xam ne lépp daal dajale woon na ngir wala bokk li nga xam ne fas yéene ko def ci mondial bi eh, toll na ci quatorze milliards quatorze milliards. muy budget de participation kon ci boobule mondial fii ba mondial bi di jeex daal bu ñu ko xaymaa kon nguuru Sénégal fas yéene cee def quatorze milliards de francs CFA loolu ñu tey ñu war a seen teew